sën seen sama yaay la sën sama yaay la loo xam sën laa gën a ragal ke sama yaay yuuxu sën munu ma ko woon sama yaay du ma woon yuuxu sama yaay moom day ree rek moom moom mais sën dama ko ragaloon ba bu dara xewee damay bañ moom mu ko yëg dama ko koy wax gaynde la sën xaarul yooyu xanaa xamoon ni ma mel nii yàlla xam na ne si sën laa ko jëlee dëggu gi ma dëggu nii ak loo xam ne su ma koy wax da ngay foogoon damaa mer te meruma est ce que seen non la mel seen loo ko mën a fay si addina soo ko depp soo ko manqué de respect loo ko mën a may boo ko mayoon léegi un million nga manqué ko de respect léegi day mel ni yow yaa ko mayoon un million seen non la mel bu waree liggéey mu ñëw ba fi mu war a liggéeyee gis na micro bi dafa gàtt caméra bi tàkkul musique bi dawul am na lu manqué li biru bi muy dégg neexu ko day bàyyi lépp dem toog da koy gedd noonu laa mel si seen dafa am lu ma jël ci moom loo xam ne mënumaa reetaan koo xam ne bëgguma ko voilà noonu laa mel moo tax ñuy wax dafa bëri histoire bëriwuma histoire ci sën mi ma jalis moo ma naqari parce que nag jalis mi ma jalis te réew mi fi mu toll réewum bësantel nit dalay jël sax ko naqari nga naan non aw ma benn xaar ma yàlla ak animateurs yi comme ni ko nit yi di waxee léegi man aw ma benn xaar ma yàlla ak ñoom mais nag li ciy dëgg nañ ko wax